Abdoulaye Thiam dafay nax jigéen ñi Gambia dafay nangam nangam lu nekk ngeen koy wax Thiam yàgg naa def mbaax waaye kenn du ko doon wax waaye sooy jëflanteeg ay jankadin mool mi ama ñaalong mool mi mang xani fen dafa baax nga tegal leen on table léegi what is wrong with helping hundred Gambian women what is wrong waaye iñaanee sa bopp ba iñaanee ñi la war a donn sa deyin rek mooy ñaaw te man maa leen wax hundred waaye billaahi wallaahi tallaahi ëpp na five hundred ëpp na six hundred ëpp na seven hundred waaye dama xam ne Gambie soo ñëwee wax exact aman dañoo ne abi yàlla waaye dëgg la wala du dëgg we will make the first step ba pare li ngeen understandut public sympathy cannot influence the case which is already under the desk of the judge or of a judge munta nekk sympathy nit yi munut a tax judge bi change li war a àtte mu fa it has nothing to do with case bi jigéeni Gambie yëpp suñ génnoon di support Aïssa it cannot change the fact liñ teg ci kanami jooj bi because dangeen ngeen stupid amu leen xel xamu leen dara ay mbaam ngeen yéen ñooñu di ko wax seen góor jigéen GP boobu boss driver boobu toog di wax rek li ma xamu ci dara lii du personal attaque ci Aïssa ak Caam Caam yàgg naa def li li Caam tabax ci ay hospitals lim tabax ci ay case de santé lim tabax ci ay school ak ay daara ci Sénégal Gambia ma wax leen ne Abdoulaye Thiam luwaas na benn kër kanada fo wan ye te kenn xamul ne moo ko luwaas ñu def ko zawe dafa jàngal doomi julliti not na li Cheikh Ahmed wax rek la def de dafa yàgg def te man waxuma ci waaye man su ma ñëwee nag di wax dangeen di understand ngeen foog ne tey la waaye xanaa nit ki loo ko bañ bañ bañ let's say Thiam dafa bon nit ku bon la baaxul waaye ku war a dimbale téeméeri jigéen loolu lu baax la let's applause that xool dëgg la wala fenn su fekkee fen la ñu ne ah Cheikh Ahmed moo ko waxoon gisuñ dara su fekkee dëgg la ñu ne ah Thiam de lii moom bon na waaye lii lu baax la this is what we call honesty mun nañu ne man I don't like Thiam he is not my cup of tea I don't trust him whatever name we call him it's all good waaye su defee lu baax nen lii baax na loolu mooy màndu waaye man Aïcha laa support Thiam baaxut tey baaxut suba su jullee du dëgg su jàngee alxuraan du dëgg su dimbalee xonde jigéen du dëgg dara du dëgg waaw léegi yéen ñi bëgg a fexe ba Thiam bu mu def loolu what help and support do you have for Gambian woman toog di saaga seen tey maa ngi gis GP jeeg bi euh, euh, borom koy bu gàtt bi naan waa jigéeni Gambie den bon den soxor kenn bonut fii kenn soxoreewut fii Aïcha Fati because mbaraana loji bi moo nekk jigéen ñi suñ ubbeeku woon def lu raw loolu I am telling su jigéen ñi ngi nii jigéen ñi defaruñ seen ween yi ba seen cuusi ween bi du duñu am feeling defaruñ seen boñ yi defaruñ seen taate natural ñu leen yàlla bindee noonu leen toogee jigéen yooyu suñ buggoon a mbaraan lu ay sa am ñu am ko suñ doon dem uti sëriñ all over the lu ay sa am ñu am ko waaye ñoom liñ bëgg a mooy ku ñoo defalante dañoo defalante ngir yàlla te yàlla tax di clock in from eight to four luñ liggéey ñoo ko moom these are the women we applaud and clap for because we love them and we really appreciate them waaye ñun duñ support mbaraana loji duñ gp féministe duñ gp benn jeeg fii ngeen fayal benn benn rapport pour muy dem di duul di bind ay rapport yu baax kum jot rek jëlal ku wax bi jot rek jëlal tudduma benn tur dama ne yéen féministes yi fayal ngeen duulkat pour muy dem di binda duul bu war a jógee ci code bi kum jot rek jëlal I don't mention any name and I will never be disrespectful ba tudd kenn te kooku ngay ànd ak jëkkër Aisha Fatty di dem diina nit di leen gis kooku nan la war a mën a reporter dëgga du ko mus a def because he is on the paycheck man duma reporter I don't claim to be one. If anything, I am a good PR. te bi ma ñëwee di defeen caam defeen naa ko nit yi understand neen support neen ko te lu ngeen understandut mooy yéen yéenaay di minority the majority are with caam every intelligent and sensible and honest and pious human being is with caam xam nga ñen ñoo soppoon Aïcha Fati mbaraankat yi caga perte ji gp jeeg ji góor jigéen yi caga yi ak ñi nga xam ne den lost their life ñii rek ñoo support Aïssa bu leen jaawale sympathize with Aïssa and supporting Aïssa is two different things supporting her means you agree with whatever she is doing sympathizing with her is purely human ñun ñëpp ñun ñëpp den ko yërëm yërëm neen ko bu leen jaawale yërëm ak support soo support ay sa mooy ne jikko doomi xaraam yi mu def jikko caga yi mu def sàcca yi mu def yooyu yëpp danga ci nangu waaye soo ko yërëmee nag nit nga kenn éenewul sa moroom kaso surtout jigéen ñun ñëpp a yërëm aysa waaye yërëm ak support du benn doomi xaraam yi rek ay support aysa wax danga ko mun te soo waxee mu leer supporting her and sympathize with her is two different things every sensible human being sympathize with her because dafa metti waaye jànka di rek ñoo ko support ku support ay sa jànka dinga man maa ko wax. cheikh bi maa lay ziar. maa ngi lay delloo ziar euh, dafa mel ni da nga am information ci ay sa chambre bi mu nekk ak kaso gi nu mu mel ak nu mu nu mu koy dundee loo ma ci mën a wax. cheikh bi liñ lay njëkk a wax mooy dañ lay santaat yàlla ba ñu yàlla defee ay jigéen waaye ba ñu yàlla maye sutura ñu am yar gu toll ni lenn yi rus nañ kaa def te da wax su feebaree parfois nopp yi ko dee dégg ñoo war a wér. Mhm. te yal na la yàlla defal jàmm yal na yàlla sàmmat sa kalama ak sa xalima gis nga cheikh bi kaso dafa doy waar rawatina kaso Sénégal moo tax ma ne la ñi dee toog ci internet bi di dee wax naan Aïcha ba ma ko déggee dama tiit ñu ne Aïcha mi ngi dee nekk ci chambre bu ñu climatisé may laajte ci àdduna ci Sénégal bi ma dëkk waaw loolu lañ wax sam Gambien yi nee nañ Aïcha chambre climatisée lañ nekk waxkat yi nga xamante ni ñoom dañ leen dee fay pour ñuy wax ñenn ñi nee nañ. Mhm. Aïcha ci chambre climatisée la nekk ci kaso ba mu nekk. Mhm. ma xamal ko ne Sénégal ba Sénégal daj. bu dee Aïcha camp pénal bi mu nekk nekk ci deux voies liberté six bi ma xam man foofu camp bi administration bi yëpp bu féminine bi moo tax may wax mhm. ñaari climatiseur moo fa nekk benn bi ci bureau directrice bi la nekk benn bi nekk ci bureau bi nga xamante ni moom mooy astafurla ñett benn bi nekk ci bureau bi nga xam ne mooy bureau adjointe bi ak infirmerie bi ndax infirmerie bi dañ dee laaj muy sedd ndax parfois nit nekk ci situation boo xamante ni ventilateur dootu ko doyati loolu moo fa am su mooyee loolu Aïcha Fati mi nga xamante ni moom moo am problème ba nekk foofu suñ ko laajoon su démb doon tey wallahi enzim dana taxaw carrément ne bu leen wax bu leen kii dem leen ngeen wol ma càmm sukkal ko raamal ko ma baalu ko parce que fa mu tëdd nële di biir camp pénal mi ngi tëdd ci chambre number two muy kaso ba numéro 2 la tëdd chambre 2 chambre bi mu ngi am dee am 27 personnes te ci kanam tuuti parfois mu dem a dem ba am ay trent faute tuuni tuuni tout day dem ba am trent 31 wala 32 personnes maanaam fanweeri nit ak ñaar ñu nekk ci benn chambre nga bokku ak ñoom lal yi ay mer gàddu la te lal bu nekk da nga koy bokk ak sa morom foofu chef de chambre bi kese mooy tëdd ci benn lal moom kese kese kese yor commande télé bi moom ak homme de am jeex na. te ma wax leen ne leen Aïcha Faty fa mu tëdd ci chambre 2 ma ko bokk ak fanweeri nit daanaka ndax ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ci kanam tuuti nga dégg ñu defeere fa ay nit mu nekk ñaar fukki nit wala fanweeri nit kon kooku soo ne ko mi ngi si jàmm ci ku xam dafa tàmm yéeg ci ay auto avion ci ay climatiseur di tëdd ci kii dafa metti yéene wuñ ko kenn ma ne leen Aïcha Faty ci génn leen ci li ngeen nekk ba ci mardi bi passé moom moo dem waañ dañ ko dee dem wàññ mu dee raxas di bale di juutu di ko def comme détenu yi fa nekk yëpp parce que foofu noonu amul détenu égal détenu comme Ndella Madior mi nga xamante ni ñëpp xam nañ ci Sénégal ñëpp xam nañ fa mu taxawee ci réew mi taxul bañ ko bëggee te dañ koy tëtal la ñuy defloo détenu yi moom lañ koy defloo la ñuy defloo ka cagatu ñu jàpp ko la ñuy defloo ka lii ñu jàpp ko la ñuy defloo ka dee ñu jàpp ko loolu lañ koy defloo te Aïcha Faty Aïcha Faty loolu lañ nekk di ko defloo mardi passé dafa dem waañ moom ak ñetti moroomam di raxas kii togg di togg ñoom ñu dee raxas di bale chaque fajar dañ ko dee yee mu dee corvée six six o'clock ci am ci suba suñ dee julli fajar gàdd yi dañ dee taxaw wax ñiy corvée ñu génn corvée ñi ko xam xam nañ li may wax ñu génn soo dee suñ génnee dañ dee moom ci boppam dañ ko dee yee chaque fajar mu dee bale détention bi détention bi mooy couloir bi ñuy toog di ndekki wala fu ñuy toog di añ ñu bale ko bale ci ginnaaw raxas duus yi raxas duus yi gàdd yi di dugg su ayee nekk mu ayee nekk kenn exempté wu ko parce que ñu bëri ñu ngi dee wax naan dañ ko dee exempté exempté mooy da dem ci infirmier ñu bindal la këyit ne mënoo liggéey déedéet kenn exempté wu ko kenn exempté wu ko mu ngi dee liggéey normal di def li détenu yëpp di def di togg di yàq di def waañ ba di di di corvée di def lépp lu mu war a def. maanaam maanaam kon donc ko su maanaam suñu bi daan dem ak lii léegi day bale di togg di def le ba pare lal bu ndaw moom ñaari jigéen ñoo koy. tëdd. wallahi anzib fa mu dee tëdd sax dafa baaxul te seen chambre maanaam amul ay fenêtre ci kaw a kaw soo yéegee soo xoolee sa bët bi ci kaw ay ñaari ron la am ron yu mag parce que fenêtre dañ ko dee kaste ndax dañuy bañ ñu jaar fa ron yu mag yooyu ñuy am noonu ci adduwaas bi lay jógee directement ay unkee lu nekk dee dugg ci biir chambre bi te su tawee heure bu tawee ba pare dañ dee génne seen mala yi teg ci digg détention bi pour naaj bi jàpp ko ndax de astafurlah sàmm si sa cinq dal la su dee taw ñu dee am problème sa seen kii ni muy seennee noonu ku nekk lal bu nekk maanaam ñaari lal ci diggante ñaari lal yu nekk lañ teg benn ventilateur te ventilateur bi danga nga ko dee fixé dañ lay jox heure boo koy taal ak heure boo koy fay su xasee bañ ne sonné fajar sa heures du matin dañ leen di yee ñoom ñëpp ñu génne leen rangale leen rappel leen bañ jeex ñu dugalaat leen nga yàq say nelaw doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg espace bu ndaw moo des si biir bi mooy fi ñuy jullee ku julli sa morom da ngeen di rang douche biñ bokk ñoom ñëpp moom ci boppam da dee day defar ne ba mu fa demee léegi bi mooy trois troisième fois corvée na ndax nit ñëppay wër suñ corvée ba mu wëraat mu corvée waat corvée bi mooy da nga dee xëy soo xëyee des fois néeg bi nettoyé ko ba mu set raxas douche bi ngeen bokk yéen ñëpp bu nekk ci biir néeg bi nga raxas def ko soo xëyee fajar def ko suñu añee ba pare nga def ko bala ngeen da tëdd suñ la indilee lekk da koy taañ lekk soo paree nga raxas bool bi ba nga la génn ko si biti kaso bi fu 18 heures jotee dañ leen di dugal ñoom ñëpp ci biir tëj leen ci biir suñ génnaatee suba ci ëllëg 9h la. ngeen nekk ci biir lu fan fanweeri nit. xaaral xaaral bi mu nekk. biig moo bi moo bloguma la woon. ndax du biig moo boobu am na ku ma blogoon de biig moo su dee yow la bugguma nga seetaan ma de su dee biig moo bu ma ko fa I don't want you to look at me yow moom éneewu la nga ma seetaan because li ma neex rek laa la éneewul léegi buñ la tëjee bu buñ tëjee 18h kañ la ñuy ubbiwaat kaso gi pour ngeen génn. ëllëg sa ca 9h lañ leen ubbi pour ñu ñëw ndékki. léegi affaire waxum téléphone bi. 9h nga ndékki. wax téléphone. téléphone bi chaque jour am nga droit woote. am nga droit woote chaque jour juróomi minute te da ngay fay ñeen fukk da ngay fay 200 francs pour woote juróomi minute maanaam xaalis bi ñu dee dugal dañ koy dugal ci secrétariat ba heure boo ñëwee ci téléphone bi ñu bind sa tur Aïcha Fati jox la téléphone bi juróomi minute téléphone bi coupé directement nga delloo téléphone bi nga wàcc amoo droit woote ñaari yoon. léegi amul comme whatsapp nga snap yooyu noonu amul. laay laa Facebook whatsapp xanaa télé nga dee seetaan mu dee seetaan télé di gis boppam ca journal parce que même télé bi chef de chambre bi ak de chambre bi ñoo dee yor commande bi suñ dee suñ dee suñ dee seetaan ñoom ñoo dee xool fu leen neex ñu jàpp ko di seetaan ay série ay bete bete ak ay kii yeeg yooyu noonu te ñoom ñooy diriger amul toog ba mu neex la sax di seetaan lu la neex de déedéet film sax soo ko bëggee seetaan da nga dee léegi léegi amul droit moom ay Faty amul droit ñëw fekk commande télé bi te jàpp tegee mu jàpp ko mu bës ko déedéet. Hmm? waaw su bëggee tey ñu jàpp seen ak hmm. da dee da dee da dee neexalaate nanaan ah doo ñu jàppal fii ñu xool ban temps moo fa jot Gambia wala ma xool nit ku dëkk Gambia après mu dem toog. léegi comme moom euh, toilette yooyu nga xam ne da ngay toog jël sa time foofu amul toilette yi maanaam puupukaay foofu da ngay jonkoon ci suuf wala da ngay toog. toilette bi seize uh, seize seize français la xam nga dañ dee wax seize anglais mooy bi nga dee toog seize français bi mooy ba nga dee jonkan eh. waa da nga dee jonkan benn ñaareel ba foo fekk douche bi ndox baa nga dee xelli te ñoom fanweeri nit ak yooyu noonu yëpp benn toilette lañ am benn sangookaay benn benn benn duggeekaay douche jeex na benn puubeekaay jeex na moo fa am da nga dee rang soo hmm. teelu te yeewu pour nga sangu problème la su heure génn jotee ñëpp ay génn même soo sangul seen yoon nekku ci dañ lay gàtt si biti nga génn léegi vingt-quatre heures vingt quatre heures ñaata temps leen leen di génnee pour ngeen doxantu ci biti ñu tëjaat leen seen ne su su night night o'clock jotee am dañ lay tijji buntu yi nga génn ba kañ nga ndékki twelve ñu jox la nga añ soo añee yaa xam soo añul yaa xam one o'clock ñu dugalaat leen ci biir tëjaat leen ci biir ba ba three o'clock pm ñu génnewaat leen five ñu jox leen ngeen reer six ñu dugalaat leen tëjaat leen ñëpp léegi dootoo génnaat ba suba nine. nine maa la ko wax wala nga war a naan garab infirmerie vingt heures ñi nga xam dañuy am garabu guddi bu ñuy naan vingt heures su jotee garde bi ñëw jël liste bi. Euh, euh, daraame Cheikh diw diw ñu génn ñuy jiital leen ñu dem infirmerie naan seen garab ñu ñëwaat ñu dugalaat ñu tëj ñu dem tëddi. léegi. loolu moo fa dee am. léegi li may laajte foofu ni ma déggee ne comme dañ lay jàpp léegi léegi di la laal jigéen ñi di la laal yooyu am na comme maccalante euh, xam nga loolu loolu seex bi loolu mënta ñàkk ndaxte euh, mënta ñàkk ndaxte da nga dee xool surtout jigéen bu tàmm góor wala jigéen bu xam dara ba pare euh, ñu tëj la foo xamante ni yow sa yaram mosoo toog semaine wala ñaari semaine yoo xamante ni joxoo ko li muy laaj ñu tëj la chaque jour ngay gis ni yow chaque jours yaa ngi dee tëdd koo yema koo yema koo yema koo yamal su yàggee yow sa bopp yaay transformé sa xel mi bëgg xoolee kooku beneen bët Hmm. parce que yow sa yaram bi moo ko dul mën a téye moo tax sàmm sa bopp ak kii yee noonu parfois loo bëgg bëgg bëgg bëgg sa moo ko dul na nga daje seeg ñu xaw a saay-saay da ngeen dee xool ñu tëdd ba guddi sax nga gis ñaari nit du jëlante duggandoo ci douche bi bokk benn douche bi ñu dugg yoon du ci dee nekk parfois nga xam ne lii nii ñii li ñuy def du yoon sa yoon du ci dee nekk parfois nga gis ñaari nit juboo juboo ci biir néeg bi ba ne ñii dañoo juboo ba nga boole leen lal waaye parfois nga am sax ñaaw nga tasaarewaat leen mais loo leen tasaare tasaare suñ bëggee gise gise loolu mu ci dee ñàkk mu ci dee ñàkk te moom yàlla daf ko nattu chef de chambre bu sadique la am. léegi léegi ñu ne garde indi la nga màccal ko fii mu laal la lu gaaw pour ñu may la privilège loolu tam yenn saay mu am. non non non foofu garde yi moom euh, côté boobu moom garde yi surtout euh, camp pénal garde yi moom macha allah lañ leen di wax mention spéciale te ñi ci ëpp doole ñëpp dañoo am jëkkër maanaam 35e euh, bi ñoo ci bëriwul ñu am jëkkër te yaakaar naa su fekkee am na ñu ci amul jëkkër matuñ 3 4 personnes lañ mais ñu am garde yi amul góor non non non ñëpp jigéen lañ directrice bi ba ci suuf ñëpp ay jigéen lañ amul benn góor kenn raxu leen. Oh. su fa góor duggee sax mooy góor yu nekk ci kaso campénalu góor ñi ñëw taxaw maanaam ñi soudeur yeeg yooyu noonu war a defarkatu làmp électriciens yi defar dañ leen di gàdd defar suñ paree génnaat. waaye ñoomu neen ñoomu jigéen ñi ñoomu neen. yow doo gis góor da ngay seen góor rek waaye doo gis góor. xanaa nga am visite nga ñëw tey sa mag bu góor ñëw visite la wala sa copain bi wala sa jëkkër ñëw visite la te même sa jëkkër su lay visite sax yéen a mook mook mook man mook mook ki nga xamante ni sa xaritam moo koy sees yéen ñëppay bokk toog ñiy visite dañuy toog rangaloo yéen ñi nekk détenu yi ngeen toog rangaloo benn table bu un mètre et quelque tàqale leen loo seen loxo sax pour mu laayante dañu ngeen koy yóotu lante soo leen ñëwee visite bu kenn ku nekk dix minutes nga am nga genn dem parce que ni ñi dañ dee bëri Mm-hmm. da nga dee gis ku mel ni Aïcha Fatim mu ñëw tey chaque visite li toll ni mardi ak ajjuma moo am visite mais chaque visite nga gis kenn ku nekk lu tolloog fukki nit di ko seesi kon donc ku ñëw cinq minutes nga mën a def dix minutes dem parce que visite yi deux heures de temps trois heures de temps la war a nekk mu jeex ndax heure añ si jotee dañuy añ si heure dugg jotee aussi dañuy dugg loolu moo dee tax dañ ko dee régler visite suba bi deux heures de temps la visite ngoon bi trois heures de ku nekk dem xam nga loolu tamit dafa bëriwul sëñ bi. gërëm naa moo tax nag waaw ñun ñi di wax ak yow man mii di wax ak yow yërëm naa ko parce que ku xamul yëkkati bant ñu la dee raxasloo ay bool di la fomploo di la korveloo di la baleloo ay détention ngay raxas douche di dem di jonkan ci siège anglais ba pare di tëdd ci man la yoo xamante ni dara yi xamoo ban 1900 mu la fa nekkoon dara ya ku ñëw tëdd ci soo paree dem bàyyi ko fa da ngay gis ku tëdd 4 ans même dara yi la fa fekkoon nga ñëw mu ne la dara yi ëpp na 4 ba ma fi tëddeeg léegi te mosuñ kaa changé à chaque fois ñëw fóot ko ñoom seen bopp fóot ko ci douche bi weer ko tuuti mu ko tey ku mel noonu noonu ak koo xamante ni mës ta tëdd ci du lu weex fu mu toll di wone ni nii laa mel nii laa toll nga xam ni fii kàttan ak doole yàlla kese ka am. donc nañ leen delloowaat suñu mbir ak suñuy bopp ci yàlla. nga xam ni moo fi ne ay Faty nag yéen ñi di ko support wax naa leen ko sànq boykaam mi ma doon topp di ma saaga ci live am bi tontunu ma ko faalewu ma ko heure ma ñëwee mu bloqué ma mais bis bu ma jëlee dinaa ne ko li ngeen koy def dimbaliwu ko Aïcha Faty jigéen la jigéen kenn du ko yéene kaso. jigéen hmm. place am du kaso. te dafa hmm. am chef de chambre bu sadig nag chef de chambre am noonu la chef de chambre Aïcha Fati noonu la Sadik yi xam naa ni bis bu dekkoon ne dana ko fa dóor ba muy bëgg a dee te gàtt yi dañ dee faral kon donc na moytu te yéen aussi ngeen dimbali ko baalu leen ak caam mu baal leen ngir yàlla ak suuli foofu du palaasu kenn Ndella Madior moo ko ëpp kàddu Sénégal foofu te mën nga tëdd prison ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc maa ngi jégaluwaat bu baax a baax ci kàddu yi euh, di la sant euh, di la gërëm cheikh bi di wax ni sant naa yàlla ba ma yàlla defee sa taalibe donc ñi la dee sant di la gërëm di la wax ni aussi sëñ bi li nga dee sànce yaa ngi koy teg ci temps yaa ngi koy teg ci heure yaa ngi koy teg ca fa mu war a tegu ndaxte yére lu mu rafet rafet kaka sol am na nu muy comporté woo rek rafetaay ba du génn. victim la she was once a prisoner. she's talking from experience. mu nekk jigéen. gis li nga xam ne moom moo mooy xaar Aïssa Fati ci biir kaso bi mu yërëm ko. éenewut ko ko. mu gis ne the solution is not takk ay rajo di saaga nit yi di attaque di threaten di def nonsense waaye solution bi mooy mu jéggalu ñu baalal ko wala mu delloo alali jàmbur this is the right approach we should take waaye takk sa TikTok dem dawali boos ba sa muuti bi tàng nga ñëw toog ràcca sangaam yi mel ni bajo xale naan itee sa olof yi bonut nga doon jéegi féministe ak gp féministe toog di saaga càmm boo xam ne moo la gën gën sa baay lim mën sa baay mënu ko lim def ci réew mi sa baay defu ko ci réew mi yow tekkiwoo dara soo ñëwee vacation sa ñoom ay sa faati ngay topp ñoo lay may di la dimbale di la snap dara tekkiwoo jigéen ju ne nga woo amerika doxaan ko pour am kayitu Amérique mun a génn Sweden googu ñëw fi ah ku ne nga Thiès dama la bugg a takk dama la takk ku ne sa mënoo fee ñëw lu mooy vacation te soo ñëw jigéen moo lay dogal ticket tekki woo dara di xas sa baay ku mën sa baay yarafandu ah jéegi GP bàyyi leen seen yëfi caaxaan yooyu. waaye nag laa xar nit ku ñëw ba ne moom su sañoon doon xéeféer benn dee am xam-xam rey caam kooku su duulalee ay nit ak sosal bàyyi jàmbur yi mënta saf kenn ndax yow yàlla ak yonantu nga njëkk a jandee mbégte ay safaati wax bu ñaaw boobu jéegi gp bi rek ko fi wax looloo taxit mu ñëw ba suma live yéen ñëpp ngeen koy dégg mu ne Aïcha day ubbi dataam bi ñu ko nukka biir këram moo def Aïssa Thiaga ki doon wax ni jigéen la den ko tëjoon prison mu dunda ko ñam ko xam li moo wax tey slay queen boobu dafa line pour poup pour seben benn spoñ boo xam ne yow kenn yaa faa tëdda lañoo boole ñaari jigéen ni ni ni jéegi jéeg ni jéegi euh, mbaraanaloji yi waxee woon kon miin na góor because mu ne dafa tukki di laalante jël hôtel di laalante këram di laalante léegi nag nga war a ñëw toog doo gis góor képp ku leen wax ne mu ci private room dafa fen because private rooms amu fa te su fa amee yiñ dee defar mu xale rafet is meant for ambassadors ministers wala high profile waaye dama bëgg a ngeen understand ne ay sa du high profile Sénégal sa taluñ ko because xale yu jigéen ñi sénégalais ñoo ko gën a rafet ñu ko xaalis gën koo lewle Sénégal dañoo takk ay million di dugg a pileen ñoom mbaam njaay savon di jaay diw di takk million di dem liggéey di ñëw amuñ mbaraan xamuñ mbaraan di dimbale seen goro yi toog fi ñu war a toog ay sa du priority ni ngeen ko defee priority nii nii nii ci la because xamu leen àdduna soriwu leen def ko ku ponkal ci yéen du lu ponkal Sénégal we don't even give her bi ngeen ko jox nii Ndella Madior Diouf moo ko gën askan ci Sénégal ndeela doomi buur la ëpp ko xaalis tekki lum tekkiwut ñu ngi ko ñuuf ci kaso gi mu toog benn place ñu wat ko ba set ay sa den dog weyami dog yëppam pak ko benn place ngeen naan ñu ay private room ak téléphone am ak nangam yéen a ngi tuumal sax di Senegalese prison system yéen yéen a ngi leen a tuumaal ne den jox ay sa privilege over Senegalese citizen jox ko private néeg jox ko téléphone mu ko use moom Aysa lii ngeen a tuumal senegal ne da ngeen a dimbale Aysa yi da ngeen tuumal Sénégal moo tax mënu leen wax dangeen ngeen war a noppi yéen nii a ngi bëgg a wan ne kon Sénégal seen prison système bi den jàpp ay sénégalais tëj leen ay safaati ñëw ñu jox ko privilège private room mu am AC ñu bàyyee ko téléphone lii ngeen a wax auto sénégalais authorities di leen ko dégg because seen seen audience bi bariwul man leen dee déglu